murtajan minnatun lana jariun auzu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi nii seetaan te di ñu déglu ñu dellu siwaat seen jataay bi ñu tuddee madinatu ilmi ñu di ci amal ay waxtaan fii ci seen site bi ñuy wax ak actu tey ñu dellu siwaat fas yéene ànd ak ci niñ ko baaxoo def di waxtaane ay tomb yu jëm ci lislaam ak di waxtaane nit ñi nga xam ne dañ fee jaaroon tey nit ñu baax tey jii nag ñu fas yéene waxtaane kenn ci njabootuk seexul xaddim muy soxna may Kubra ñu gën koo xam ci soxna may Kabir li waral waxtaan wi nag ak di ko fàttaliku dafa doon ci ñi nga xam ne dafa bokk ci exemple yi nga xam ne dañ leen a war a jàngale ci diiru jamono waxtu wu nekk dana war a jàngal bu ñu demee ba jamono toll fii ci wàllu référence ak wàllu fitna yi dal jigéen ñi ñu jàpp ne loolu lépp li ko waral mooy ñàkk leen xamal jigéen ñu baax ñi nga xam ne dañ fee awoon te seen dund gépp nekkoon ci jàng ak jàngale seen dund gépp nekkoon ci xeeñtu sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa ak teg seen tànk fa mag ñu baax ña tegoon soxna may mi nag bokk ci njaboot gu teel gu sell sell goo xamante ni njabootuk soxna jaara mu njabootuk sëriñ Mbusoo bi waaye doy na sëkk kuy sa waajur ñu ne Serigne Touba doy na xeetu baax yu nit di lim ci baax daja na ci yow waaye loolu lépp du lu mu doyloo rek sëgg ci noonu rek tax mu fas ci ay loxoom waaye loola def ko soññ woon ko ne ko kat fi ñuy jaar ba am lu baax li ñu am boo mënta dajale lu baax leen am lépp it bu ëllëgee nga mën a am lu baax loo xamante ni yaa ko fàggul sa bopp. yonent bi salaa salaam bi muy dénk ay mbokkam ba dénk faatu bintu ne ko dama bëgg rekk loo bëgg ci sama alal nga jël ko samay tàndar maa ngi nii loo bëgg jëlal waaye yomal xiyaam di dama bëgg nga dogal ma fa aw lay lay wi ma fay dogal nag mooy nga jaamu yàlla te jaamu yàlla kat dara njëkku ci julli nee ko nee na ko nanga nga baral say julli loola nag moo tax soxna May mi bokk ci ñooñu doon koo xamante ni mi ngi gane àdduna loo xamante ni nit ñu bare bari xam nañ ko mi ngi ganee àdduna Jolof ñu di ko wax Ceyeen ci 1907 wala 1908 maase ak ka nga xam ne moo di Serigne Abdoulahi Mbacke boroom dër bi nga xam ne ay seex lañ leen mën a tudde ñu doon ko yàlla dogal mu jóge ci waajur wu sel ñu xam ko muy xaadim rasul di si Ahmadou Bamba waajurum wu jigéen di soxna Aminata ni Bousso moom it bokk ci njabootuk sëriñ Mbusoobe doon koo xamante ni soxna si bari na ñun ko xame tur bi ko sëriñ bi gën a tudde mooy soxna Ndey Aminta waxoon ne dee leen ko wax soxna Ndey Aminta Buso loola nag ab cër bu rëy rëy la ñam ko digaloon jàpp naa ne ñooña xam nañ ko ba baat boobu saxaloon nañ ko loole mu leen waxoon ne tamit xoole woon nañ ko bët boobu moom mii nag mook sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke mi ñëpp xam ci maandu ci ragal yàlla ñoo bokk lépp ak ku ñuy wax soxna xadijatu mbakke moom tamit moo soxna si ñoo bokk lépp moo doonoon seen mag yàlla dogal bi mu tolloo ci jàng sëriñ bi yóbbu ko ca daaru alimul xabir ndaam ca sëriñ daam ndaam abdourahman wax ne na ko xamal foofa la jànge li nga xam ne moo di alxuraanam ba sëriñ bi indi ko sëriñ ab daam indi ko daaru indi ko njaareem xamal ne sëriñ bi mokkal na alxuraan mu wax ko ne bind kaamil mu bind kaamil boo xamante ni bu mucc ayib la boo xamante ni wax nan ne ci doomi sëriñ bi moom moom lan xam ci ki ci njëkk a bind ab kaamil xissab kaamil ba ñu ci bari xam nan ko mooy na xam ne na la sëriñ bi nekk woon gànnaar ak euh, mbokki naaram yooyu nga xam ne am na ci koo xamante ni doomam euh, ñu ngi wax seex euh, Saadi Habib moom la wala kenn kum ci mën a doon teewlootuma ci kaamil ba du jar sax ñu koy répété lool waaye li ci am solo rek mooy wane ne jàng na xam-xam jàng na alxuraan ba bindal sëñ Tuuba ab kaamil kaamil booba dégg na ca ngërëm loo xamante ni jàpp nañ ne kenn wala ñu néew ko dégg ci sëriñ bi wala képp ña nga xam ne noonu laxasaay ci wetu sëriñ bi di ko xëyal di ko gontul ngërëm lan dégg ci sëriñ bi moom la soxna may dégg ci sëriñ bi bu baax te ku ci xam na ne ngërëmal sëñ Tuuba li gën a kawe ngërëmam yépp jërëjëfam jaay jëfam lu mu la mën a wax fekk la nga koy def bu la fekkoon nga taxaw sax mu ne la jërëjëf loola dina la topp ba topp say sët waxantuma la ak moom mu gërëm ko ci li nga xam ne moom la sëriñ bi gën a bëgg ci alxuraan la ko sëriñ bi gërëm moom ak tarbiyam ak ngërëmam ci alxuraan la ko am te sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne alxuraan mooy sama wéttal mooy sama doctor alxuraan kuy xëy sama tool bëgg ci xëy xëyal ci alxuraan kitaabu rabbi kaana li wa kuntu téere bi mooy léppam ku nekk ci téere bi xamatul sa sikk daf ko daan wax képp koo xam mokkal nga alxuraan xamatuma sa sikk te bu ma kenn wax sa sikk boole woon fonk lool soxna may bokk ci doomam ji nga xam ne moo ko njëkk a jébbal ab kaamil mu bind ko bi mu noppee mu yóbbu ko bàyyi ko foofu ci njaareem mu jàng fi xam-xam ci mbokkam yoo xamante ne ay nijaayam la ndax moom ku nekk xam na ne ay mbokkam yépp nitu alxuraan lan nitu sunna lan ñu jàngal ko ba mu jàngee xam-xamit ba àgg fa nga xam ne fa la dayob xam-xam àgg ba tàmbali di woy ak a bind euh, bind ci lu baree baree bari bind ci arab bind ci wolof bëgg sëñ Tuubaa di ko xeeñtu loola ci la ko sëriñ bi yóbboo ci ab taawam muy soxna Fatima mu ne na ko jàngal ak taalibe na ko jàngal ak taalibe na ko tarbiya soxna Fatima moom nga xam ne bi yoon wi sosu ci kanamam la ba nekk ci koo xamante ni yàlla macha allah bari na lum xam ci yoon wi damay wax ne soxna Faati ginnaawam luñ dolli ci yoon wi rek bokku ci wala luñ ci def rek bokkut ci yoon wi ndax moom daa jàng yoon wi ci njalbeen ba ci mujjam daanaka ndax bi jamono Sëriñ Abdou Lahad la fi jóge kon yàlla mayoon na ko gudd fan te yàlla xamaloon na ko yoon wi soxna si tarbiya ko tarbiya goo xamante ni gu rafet a rafet la goo xamante ni boole koog sëriñ bi boole koog taawub sëñ Modou Moustapha muy soxna Mariamatu soxna Mari Mariama Mbàkke ñu tarbiyew foofu la lay won ne ak tarbiyam ak ak mokk na ak am na ngërëmal soxna Fat ja mooy wane ne fii jóge na fi dem Kaolack dafa tukki ak ngan bi mu demee ci ngan googu bi ko ñaanee benn portele dana leen da ngeen di dem ca soxna Faati bu leen waxee joxe ndigal ngir ma fotowu ma fotowu te boobaay tamit lay tax mooy na la ko bindal ci kayit gi ba mu xam ne moom moo ko bind boo dikkee ma mën koo def loolu jàpp naa ne ak taalibe mënut paase loolu bokk na ca am ak taalibeem ñi mu bokkaloon sëñ tubaa muy góor muy jigéen ku ci nekk da nga ko bëggoon bëggin woo xamante ni jégg na dayo moom it mu bëggoon la sëñ Moussa Ka mi jàpp naa ne ku nekk gis na digganteem ak moom wooye yéen doon séqante dara waralu ko doon lu dul bëgg gi soo so sëñ Moussa Ka bëggoon sëñ tubaa di ci xëy muy guddeem moo tax soxna may tegoon ko fu mu tegul kenn bëggoon ko bokk na ci magi taalibe képp koo xamante ni soxna si daf la daan xeeñcu ngir di xam nan nga demee woon ak sëñ bi ak ngërëmal sëñ bi ak fan la la sëñ bi toll ba tax na kum ci xam daf lay jàpp ak loxoom yu mag a mag a mag tée la di la xoole jëmmi sëriñ Tuuba ndax xam na ne am na ci loo xam ci sëñ bi te moom xañ na amu ko wala boog cofeel gi nga am ci sëñ bi tax na mu ëpp tax na lépp loo xamante ni lu ñuy ëmbal nit ku baax la mu ëmbal la ko di la seeti di ñëw say guddeem ak bëccëgam loola tax na mook sëñ Moussa Ka ñu woy ay woy bokk na ci bëgg sëñ Tuubaa gi bëgg gi boo demee ci woyam ya muy woy ma ngay wax naa Maymunatul bintul Xadim war na la foo toll di jéem lu neex sëriñ bu mag bi ndeem am nga ci ngor dara dara jàpp naa ne waxin woowu waxe ko ci kanamu sëñ tubaa mooy dangaa jël mbir yépp delloowaat ko sëñ Tuubaa ndax ñun ñëpp ku ci nekk boo xoolee li ci sa biir ak sa biti li la ci sëñ Tuubaa defal e, yellante woon naag ak jombante waat naa nga nekk ci lu dul ndigalul sëriñ bi mooy da ngaa war di sant sëriñ bi bu fekkoon ne da ngay sant sëñ bi ba sa yaram wi di dajjeeku par ay pièces du tax nga jo matal ak sëriñ bi ndax sëñ bi féete na la foo moo tax soxna may waxee noonu ne ko may moonatul bintul xadim war na la foo toll di jéem lu neex sëriñ bu mag bi ndeem am nga ci ngor dara dara loolay tamit juróol ko mu tarbee wu tarbee koo xamante ni gu jégg daya la ñi mu bokkaloon sëñ Touba jàpp naa ne ku ci nekk jëmmal nga ci moom wane cofeel koo amoon ci moom digganteem ak sëriñ Fallilou jàpp naa ne lu jégg daya la loo xam am na ci loo xam neexu la wax sax ci appareil yi wala neexu ta wax ci caméra ci télévision bi ndax sëñ Fallou daf ko waxuma la seere su mu seere ci moom waaye seere su mu seere rek wane ne ko li fi nit di puukare woo muy ak njaboot yàlla may na la ci loo xamante ni ak tànneef la te loolu jàpp naa ne kuy dund ci àdduna la gën a euh, rafet ci sam nji wala gën a rafet ci sa ci sa ci say mbir bokk na ci yàlla may la doom ju baax te yaakaar naa njaboot soxna may ñoom ñëpp lako ko dale ci góor ñi ak jigéen ñi ay tànneef lañ ci biiru tànneef ku ci nekk xam na ko nit ñu ci xam na leen loola lépp liggéeyab soxna may la bokk ci ñi nga xam ne tamit sëriñ Basiiroog sëriñ Falliloog ak sëriñ laat mi nga xam ne ab taawam la ko tuddee ab taawam koo xamante ni soxna may mii mu ko tuddee soxna may ci boppam soxna may laat nettali na ma ne ma sama waajur nettali na ma ne ma yéen de jamonoy Tuubaa ju jëkk ja bu ma fa tasewut woon ak ku mel ne soxna may Kubra ma leen fa mën a am sax ndax metti woon na waaye jamono yooy wax na ne soxna may def daan wut ay ginaar wut ay nangam yu bare bari dikk woo ko toggal ko ko ne ko demal yóbbu di ko jàppale ci guddi yi ak bëccëgam di ko ngir bëgg mu jariñu waaye jàpp naa ne tey rëccu ko loola bokk na ci soxna may taxawaay yi nga xam ne amoon na ko ci digganteem ak sëriñ Abdou moom waaye amoon na ko ci digganteem ak sëriñ Soyibu sëriñ Soyibu moom danoo jaxasoo woon ci ay guddi ak bëccëg ba daf daan wax ne wax na ne soxna si sëriñ bi da ko daan woolu di ko fëttee ñuy waxtaan ba guddi am na ci ñu wax ne dem na ba benn bis soxna may di dem mu ne ko soxna si dama bëgg euh, nga joggi sa tànk fii bu ko defee ma def ko ci dëpp ko ci beñuwaar gi bu ma la nammatee di xool sa tànk soo na may ne ko loola de xam naa ne yow doo doyal ci man waaye damay jël sama doom ju ñuy wax sëñ moor ma nga fii ci koso dama la koy indil mu féeteeg yow nga ma koy xoole ba sëñ moor nee na loolu moo tax mu jébbalu nee na bi may jébbalu sëñ son yu ëpp ampul laa jébbaloo kon digganteem ak soxna may wax nañ ne daara sëñ xam nga ne jàngalekatu alxuraan wax nañ ne daara ji bu mosaan yëngu wala am juyoo yu fi am ci biir daara ji sëñ son bu day wax ne bàyyi leen ba soxna may ñëw su ñëwee lépp dana ko lijjanti. doon koo xamante ni tamit ku xemme moo ci yoon wi koo xamante ni ku sàmm waaye doon koo xamante ni mu bokkaloon sëñ Tuubaa ñëpp muy góor muy jigéen dégg ngeen marché boobu mu woyal soxna Xadi waaye dégg ngeen yi mu woy soxna May Ñang mii nekk ci kër sëñ Murtala nett la nee na ma gàmmoo bu masaan a jot kër soxna Ami Seex lan daan gàmmoo te sëñ soxna Ami li ko soxna May mage dafa bari lool waaye nee na ma ñun ñëpp dañ daan ànd boppa barsan lay ñëw nee na bi ma ñëwee soxna Ami ne ma jàngal jàngal uh, wolofal yi jàngal wolofalu uh, kii soxna may nee na soxna may da koy wax ne ko jàngal wolofalu soxna ami bi soxna ami seex ko déedéet na jàng kii barsak mu ne ko déedéet jàngal wolofalu soxna ami nee na bu jàngee ba ëgsi ci fi soxna ami di wax naa ma jóg roy roy du nuroog piir ma roy soxna may roy du nuroog piir nee na bu ëgsee foofu soxna may danaa ko ah, yaay piir mbàkk yow koy yaay piir ku ci nekk di wax sa morom yaa ko yaay piir loolu baax googu ak yaatu googu nga xam ne soxna may da koo meloon doon koo xamante ni tamit yàlla dogal na lu bare bare bare ci njaboot gi ñoo xamante ni seenuk am ci soxna may la amee ñoo xamante ni soxna may moo fexe ba nu am ginnaaw yàlla soxna mayee tax mu am ñoo tax ñu am loolu jàpp naa ne ñu ci bari dégg nañ ko ci kàddu ñu ne soxna may moo tax man ma am kon loola li muy tekki mooy lu baax la daan def lu baax la daan dox ci jullit yi waaye lu baax la daan dox ci njabootu sëñ Tuuba sëñ Lamine Diop mi ko doon woy daf ko doon wax ko jigéen ju man cere man ceeb xam xaddis man a woy man alxuraan bind kaamil kenn du soxna may jigéen joo xamante ni man nga cere man ceeb man alxuraan man xaddis bind kaamil loolu jàpp naa ne ku ko amoon bu fekkoon ne société bi li ma tàmbale woon bu fekkoon ne jigéen ju fi juddu danañ la jàngal ba nga man togg mën a euh, bind alxuraan mokkal alxuraan mën a woy jàng xaddisu yonente bi ba noppi la nga koy wodde mooy ak taalibe te soxna may ku nekk xam na ak taalibe wax nañ ne benn néegu doomi sëñ Tuubaa wala ñi nga xam ne kër sëñ Abdu Xaadir moo ko magoon waaye mësul dugg ci néegam ak i dàll bu duggee day barkeelu ci moom jàpp ne moom mooy ab sëriñam taxawu njabootug Serigne Touba gi ñim ci féete woon mag ñëpp mu taxaw leen sëñ Abdoulaye mi mu bokkaloon ab taawam moom la ko nga xam ne moom ay seex lan ñoo bokk ca Jolof loolu lépp day wan yaatug soxna May ak baaxam ak nekk gi nga xam ne nekkoon na fu mu fi nekk doon fa liggéey xam ngeen ne daaro Muxti la njëkk a nekk ca Serigne Mouhamadul Habib waaye gis ngeen ne liggéey bu rafet ba mu fa liggéey ba mu fa jógee mu ñëw kër maam Mor jaare ci Serigne Mor Soxna waaye jàpp naa ne ko nekk xam na ne tànneef la. ba ni mu ñëwee kër sëñ Modou Mamoun ba njabootam gi mu fa am waaye ku ci nekk fu ci nekk xam na ne Baye Fall la wax nan ne lépp loo xamante ni lu ko waroon ci kër la moo ko daan defal boppam moo ko daan def daawut ci xaar te am na ñu ko doon defal ñu ko mënoon defal waaye la nit ñi doon sàkku ci barke di ko sàkku ci liggéeyal ku liggéeyal sëñ Touba ñoom loolu la doon sàkku ci moom moo tax it yàlla fay na ko aw turam daanaka day fitti ba ñëpp danoo xamandoo soxna may ñi ne yàlla dogal na fi mu toll melaw góor boo demee ci cër yi góor di am ci sëñ Tuubaa am na ko cër yi fa jigéen di am am na ko ba ku ci nekk wax na ñu ci bare bare wax na ne soxna may mii nga xam ne moo di soxna may laylatul xadar moom la ko sëriñ bi tudde moom la ko sëriñ bi tudde loolu nag mbégte mu sëriñ bi am ci xolam am ko ci moom moo tax mu jëlaat doomam duppeewaat ko ko loolu nag jàpp nañ ne lu kawe la te loolu du ñëpp ñoo ko mën a am ci seen waajur dem ba sa waajur këram la ba tuddewaat la doom du loolu du ñëpp ñoo ko mën a am ci seen waajur loolu nag li ko waral mooy seral gum seral xorob sëñ tubaa te jàpp naa ne xol yëpp ku ci nekk mën ngaa seral sa xorob waajur waaye na sëñ Touba di xol seddal seral xolob sëñ Touba bokk na ci mën na ne moo gën a jafe ndax moom loo ko jox lu dul alxuraan ak bëgg yonent bi defal ko ca daanaka xolam mën naa bañ a sedd du alal mooy seral xolam du ay kër mooy seral xolam waaye liy seral xolam mooy alxuraan mooy seral xolam sëñ Touba loola nag ci la soxna may seral xolu sëñ Touba bokk ci dund gu barkeel goo xam ne bi mu fiy jógee mi ngi dund lu gàtt gàtt la dund guddut lool waaye aw fanam gudd na jàpp naa ne ku tuddati soxna may di nga tudd aw turam euh, ñi ko xamul sax fi ñu toll dañ koy gëstu bu baax a baax ndax wooy yin gis ci moom ak melo yi nu gis ak ay sëtam boo demee ba ci ay sëtam sax da nga xam ne la sëñ Tuubaa doon wax naa suriyatan tayyibatan tujaddidu ndax janabiyal Mustafa tax tayju loola feeñ na ci sëti soxna may muy sëtam yu góor ak yu jigéen koo ci gisit nga xam ne ku bokk ci sëñ Tuubaa la ku bokk ci sëñ Tuubaa nag la nga koy mandargaal mooy def yi fi sëñ Tuubaa te ñoom ñooñu ñëpp doo ci dégg ci kenn ci lu dul ci sëriñ bi ci xëyam ci ngontoom kon nag ñu ngi sant bu baax a baax di gërëm mi ngi fi jóge 1966 la fi jóge boobaak léegi jàpp na na xaw na yàgg waaye ba léegi dañ koy fàttaliku ak di ko ñaanal ak di aw tudd aw turam mënunoo xëy te tudd nu turam bi mu fi jógee sëñ Fallu mi nga xam ne moo fi nekk sëñ Tuubaa la mu seere ci moom ak doy dafa te ne lan moo nekk ca barabu Cheikh ibre ñu ne ko dara nekkut ca wet ga de mu ne nan ko yóbbu foofu ba Cheikh ibre xam ne am na ku bëgg sëñ ni mu ko bëggee ba noppi doon doomam kon ku ñuy nattableeg sëñ Cheikh Ibra ci bëgg sëñ Touba ba noppi ngay jigéen yaakaar naa ne sa bëgg sëñ Touba wér na kon ñu ngi ñaan soxna may yàlla nanu ko yàlla fayal te yàlla dolli ay ngërëm ñuy ñaanal doomam ji nga xam ne moo fi nekk muy sëriñ Abo Baraka yàlla barkeel ak dundam ak yëngam te yàlla may ko fan wu gudd ak wér di ñaanal njabootam gépp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu ak ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah